ñuy seetaan direct fii yéen ngi yéen a ngi direct sama kër yéen ñu dugg ñu partagé leen parce que policiers yi ah, xaw ma ay policiers lañ xaw ma ay lan lañ ñoo ñëw sama kër xaw ma ban heure lañ fi gis nga ñenn ñi dajji nañ bunt bi ñenn ñaa ngi nii di yéen ndaw ko def ay affaire xam ma heure bii xam nga non du heure yi ngeen ñëw sama kër sa waay mais waxal ma dégg non waxal ma dégg non police police a ñëw sama kër police heure bii heure bii gis ngeen heure bi jot ah gis heure bi jot ah six heures presque nangam di matin ah? matin Sénégal àdduna yéen ñëpp a ngi seetaan xoolal sama buntu kër lañ dajji directement xam nga ah soxlawul bi mu génn non non xaw ma leen xaw ma ay lan lañu yéen àdduna bi yéen ñëpp a ngi seetaan ah xam sama buntu kër lañu dajjee sama buntu kër naan ma police ñuy nelaw ngeen ñëw di daj seen kër yi naan police diggu bëccëg nekk fi lépp nekk fi ah. ñoo kër dañu ñëw heure ci kër fii dañ fi rey nit ah ah. c'est lañ feeree nit dafa dafa am nit bu mu feeree ah. ah non bu commissaire commissaire mi ngi sama numéro du noonu ngeen ñëwee sama kër sa waay waaw ban police ban police ban police ban police ak police bu ngeen mën a doon heure bii waru leen ko ñëw sama kër. ban mooy ban mooy heure normale. ban heure moo jot. non waxal ba léegi mooy jot. yee. six heures jotagul. dafa am heure bu war a ñëw bu fekkee police ngeen. yaa may dégg fépp ci àdduna bi police dañoo ñëw daj sama buntu kër xam nga wane wuñu carte wane wuñu dara xam nga ah. yéen ñëpp a ngi dégg gis nga leen ñenn ñaa ngi nii ci fenêtre bi kenn ngi nii taxaw yéen a ngi jàkkaarloog moom xam nga mu nëbb kanamam pour lan muy nëbb kanamam. lan lan ti ko ah gis ni mu def kanamam naan ma police. yéen li ñuy wax ci manqué respect yi noonu. vrai ngaaka nga non non dajji dajji dajji yéeg wàcc xam nga dajji buntu kër jaambur yéeg wàcc heure bii fii ji wuma li ngeen bañ mooy àdduna bi yëpp a koy yëg egg egg ngeen ci mille nangam doomu aadama di leen seetaan ba pare amuleen amu leen ci droit bu leen bu leen bu leen bu leen nekk di wax wax bu bëri sax fii lañ fi rey nit est-ce que dama rey nit awma droit wax dëkk bi dëkku fa dëkku lan la du dëkku démocratie ubbiwu ma ndeyam yéen waa monde bi yëpp àdduna bi yëpp partagé leen vidéo bi man Lassane Diouf police ñoo ñëw sama kër xoola heure bi heure bii ñëpp a ngi nelaw aw ma dul jekki-jekki ay gëg gëg buntu kër xam nga Assane yee c'est police xam néew ñu sax c'est la police dañoo dajji buntu bi tëpp ah mais commissaire moo la soxla ngeen jël si li da ngeen koy jël si heure normale ñu ragal ñu police bi fekk ay mala wala criminel wala dara root bu fenêtre jaamu sax da ngeen koy dajji ah loolu mooy seen liggéey ah dajji fenêtre ah. partage leen vidéo bi partage leen ko ñëpp gis ko xam nga heure bii heure bii la ñu ñëw sama kër heure bi xam nga wane wuñu carte wane wuñu dara xam nga pincé sama bunt ne dañuy dugg par force loolu fan la am fan fan ci àdduna bi ban dëkk bu am démocratie ndax parce que dañuy wax suñu réew dañuy wax suñu réew ku wax ci président ku wax ci koo mënti doon ñu naan ñu ñu ñu am lu ñu def pour yow pour lan pour lan pour lan li mooy police bu Sénégal heure bii la ñuy yeewu di di di dajji jàmbur yi solu ñu tëni solu ñu dara am nañu dara loo ne ne ay policier lañu ah xam nga def lu leen neex gis ngeen ko ñu ngi nii en direct yéen a ngi leen seetaan pare koy joxe ñoom laa koy joxe bu ma gaañ bu ma gaañ ma yaay gaañ sa bopp yaa bëgg a gaañ yow waaw man dama gaañ taxal wax leen. non man duma xoolal yooyu yëpp duma ci fekk. waaw kon donc joxal ko sa loxo. non ngi seet rek man nag sama loxo. ñu seet rek yow. voilà. sa du noonu nga may def du xoolal da ngay dox ak man de noonu nga may def de. du noonu nga may def de barki yàlla yaa ngi may gaañ. yaa ngi seet rek man nag sama loxo. génn noonu amul du ma bàyyi ma na génn génn génn amul del ma koy may ma ko may dara da may jox sama yére ma la dara génn saa yére ala yére ala yére ma génn si saa yére sama téléphone bu ko laal eh, eh, eh, sama téléphone bu ko laal